alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu atamaani aklamaani ala saydi xalqi ajmain wa ala alihi wa asxaabihi wurril mayamin amma baad asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox eh, seen wàccuwaay eh, di ñëw ci podcast bu am solo eh, di leen dokkeel aussi ci weeru koor bi nga xam ne ñu ngi ci jeexital gi te ku wax jeexitalu koor war a mën a wax ci zakatul fitre yàlla nañ suñu borom tabaraka wa taala nangul bépp jaamu yàlla boo xam ne def nañ ko ci biir koor gi bu loolu weesoo comme niñ ko waxee zakatul fitre mooy bunt bi nga xam ne ne incha allah moom nañ nar a moom nañ nar waxtaanee ci podcast bi waaye mbokk yi aussi di fàttali ne institut bi Mutadarrisuna eh, dafay joxe ay cours ci wàllum fiq ci wàllum usul ci wàllum xadiis n'est-ce pas ci istilaax yu ni mel naka noonu tamit ci euh, ulumul quran donc képp koo xam ne intéressé na la mën nga ñëw contacter ci 77 260 42 70 bu loolu weesoo euh, zakatul fitre euh, mbir la boo xam ne ne bépp jullit war na xam li nga xam ne moom mooy mbir yi ci aju mu nekk azaka boo xam ne dañ koy génnee ci bu koor gi jeexe te moom la olof di wax azaka muurum koor tey nag incha allah ñu nar gis ban taxawaay la am ci lislaam ñu war ci def quelque jàngat euh, kon zakatul fitre premier jàngat biñ ciy jàngat mooy euh, lan mooy zakatul fitre zakatul fitre ci luga cosaanam mu ngi jóge ci at tahaaratu mooy ab laab annama annamaaw moom mooy aussi ak yokkute wal barakatu ak tamit barke donc ci aslu li nga xam ne azzakat loolu la mooy at tahaaratu azzakat moom mooy azaka ci fu mu jóg moom mooy ak tahaaratu mooy laab ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu borom tabaraka wa taala da ko wax ne génneel azaka maanaam sàkkal li nga xam ne moom mooy sarax ci ñi nga xam ne moom mooy ci alal jullit yi ngir lan ngir ñu laab ñu laabee ci kon loolu dañ ciy déggee ne azaka ngir lan la ngir ngir nit ki alalam mën cee laabee waaye tamit ak yokkute la ndax képp koo xam ne suñu borom tabaaraka wa taala képp koo xam ne génnee nga sa alal daal di koy joxe la budda suñu borom tabaaraka wa taala remplacer la ko ak lu ko gën a féete kaw wala lu ko lu ko gën waaye tamit barke la n'est-ce donc loolu mu may azaka ndax la ndax day barkeel sa alal ndaxte nit ki pour mu contrôler li nga xam ne moom mooy alalam à cent pour cent pour xam ba xam transaction yépp wala fépp fi nga xam ne foofu la alalam war a jóge ci fiftim bi c'est-à-dire ci li alal bi gën a tuuti parfois mën na jafe te loolu bu ci duggee rek lu ci mel ne xulul ak lu ci mel lu ñu mel bu ci duggee day yàq alal bi te azaka muurum koor wala azakar ci boppam dafa nekk loo xam ne day ñëw di yokk barke li nga xam ne moom mooy alal kon loolu mbokk commercant yi war nañ ci bàyyi xel bañ koo nay di génne bu ñu ñëwee nag ci alfitre alfitre ci faaw ak taaw ak ak raaw euh, loolu da cee am cosaan bu dëgër loo xam ne ne day tegtale ci ak ubbitewu benn mbir wala luy leeral benn mbir nga xam ne dangay jóge ci benn weer dem ci beneen ci beneen weer la xam ne loo xam ne day def séparation ak benn weer moo tax ñu wax ayrul fitre mooy euh, li nga xam ne moom mooy kóoru dog gi nga xam ne ne xoma feetu dog bi mooy mbégte mi nga xam ne ne moom lañuy ñuy feete ci muy olof di wooyee korité kon fitru boobu loolu lay signifié mooy loo xam ne day séparé ma ñaari mbir wala loo xam ne dangay ngay waaj dugg ci benn mbir nest pas waaye tamit dañ ciy signifié tamit luy leeral beneen mbir donc buñ la waxee kon ci zakatul fit ci wàllu sharia boo ko déggee mooy azaka muurum koor bu fekkee nag ci sharia sarax la boo xam ne ne dañ koo dëxale la mooy dañ koo dëxale mooy dañ koo nattale nattale ko ci lan ci bépp jullit bépp jullit da koo war a génne dañ koo farataal ci bépp jullit ba pare dëxale ko c'est-à-dire waxte nàngam lay toll waaye tamit wax waxtu yi nga xam ne moom la mu ko war a génnee te mooy avant jullit bi nga xam ne moom mooy iidul fitre bi avant jullit korité bi nañ ko war a génnee waaye tamit ñu génnee ko ci bërëb wala ñu génnee ko jox ko ñi nga xam ne spécialement ñoom nañ ko war a jox donc loolu moom mooy zakatul fitre moom mooy azakal la boo xam ne ne dañ koy génnee avant korité mooy jullit korité bi nañ ko war a génnee ñu génnee ko jox ko ci ñu ñu xam noo xam ne incha allah dinañ leen gis donc loolu ma mabaxas bu njëkk bi moom mooy lan mooy azaka muru koor ci buñ ko tënk loolu la azaka muru koor boobu comme ni ma ko waxee kon dafa nekk loo xam ne day réparer li nga xam ne moom mooy yàqu-yàqu ak rëcc-rëcc yi nga xam ne nit ki ko defoon ci biir koor gi nest pas yenn yi ay bàkkaar la yenn ni ay sàggante la azaka nguuru koor nag dafay ñëw ngir rien que pour réparer li nga xam ne moom mooy comme jabru li nga xamee comme boo faatee comme sa julli bu fekkee dafa am lu ci yàqu ni ñu koy réparer asaka mbuuru koor tamit loolu lay représente ci li nga xam ne moom mooy weeru koor kon ban atte nag la am ci lislaam ndax lu war la wala lu ñu sopp la wala dafa nekk loo xam ne rek nit ñi ñoo baaxoo di ko def noonu waaye amul cosaan liñ ciy tontu ci loolu mooy ne asaka mbuurum koor farata la te loolu mboolem mazahib bi en tout cas ñeenti mazahib yi dañ cee d'accord te mooy maliki yi dañ cee d'accord naka noonu tamit xanafiya euh, yi bu fekkee ci maalik yi loolu mashhur la ci maanaam lu ci siw la ci mii ngir gi naka noonu tamit ngiru imaam Shafii ngiru imaam euh, Ahmad ibnu Hanbal te xanaa xanaabila yi ñoom tamit seen ngir dañ ciy dëppoo naka noonu tamit ci zahiri yi tamit dañ ciy dëppoo ne euh, farata la waaye tamit lu ëpp ci borom xam-xam yi loolu nañ wax ne azaka muuru koor farata la dem nañ sax ba nettali ci ne ijmaa am na ci lu ci mel ni ibnu munzir imaam ibnu munzir ak imaam ibnu rushd almaliki naka noonu tamit imaam annawawi ñoom nettali nañ ne wax nañ ne ijmaa te mooy boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci dëppalee borom xam-xam yépp am na ci mooy ne boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci lan mooy seen tegtal ci ne loolu farata la li ñuy tegtaloo moom mooy xadiisu abdullah ibnu omar bi radiallahu taala anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa farataal li nga xam ne moom mooy azaka muuru koor ci saa mina tamr dafa farataal li nga xam ne mooy azaka muuru koor ci saa lan mooy saa saa kon lii nii dañuy duggaale en même temps ci naka ni ñuy génnee ak quantité bi nga xam ne moom la ñuy génnee ci mu ci azaka murum koor azaka murum koor ni ñu koy génnee ci xadis bi ni ñu ko diggee moom mooy saa la saa moom mooy lan mooy ñeent mudd lan mooy mudd muddu donc benn saa égal ñeent mudd lan mooy mudd léegi mudd mu mooy bu fekkee nit koo xam ne ne loxo mi dafa diggu dóomu c'est-à-dire sewul trop ba mel na ñu may bëgg tooñ waaye tamit ngandul trop ba mel na ñu may bëgg tooñ mu nekk rek loxo yoo xam ne dafa diggu dóomu kooku nag mu tibb ba loxoom xaw a fees mu sotti ci palaat bi mooy palaatu bi ñuy balancer mu tibbaat kon tibb na benn mu tibbaat ñaar defaat tibbaat ñett defaat tibbaat ñeent defaat loolu mu koy jox loolu la ñuy wooyee saa nest pas donc saa mooy ñeent loxo yoo xam ne da nga koo def ko ci balance bi lim lay jox ci loxo boo ne dafa diggu dóomu loolu nag bu ñu ko nattalee ci suñu jamono ji euh, day tollu day varier parfois nga gis mu varier ci 3 euh, kilos parfois mu varier ci. Euh, deux kilos mais li gën a diggu doomu li gën a mucc mooy booy génnee azaka muru nga génnee ko ci deux virgule cinq kilogramme n'est-ce pas deux kilos boo ko génnewee ci azaka muru koor dépassé nga tuuti marge bi dina baax yaa ngi ci digg bi kon li ñu koy génnee nombre bi ñu koy génnee wala quantité bi ñu ciy génnee mooy deux virgule cinq kilos baax na bu continuer ne tamrin ci tàndarma donc ñoom ña euh, cinq kilos nañ loo génnee ci tam ci tàndarma wala 100 nañ loo génnee ci tàndarma wala ñu génnee ci li nga xam ne moom mooy orge mooy sha'ir mooy orge n'est-ce pas ñan ñoo koy génnee mu ne jaam yi ak tamit ñi nga xam ne dañ leen dañoo gore gore yi ak jaam yi dañ koy génnee na ko noonu tamit góor ak jigéen dañ koy génnee mag ak ndaw dañ cee génnee condition bi moom mooy ñu nekk ay jullit képp koo xam ne jullit nga farata ci yow pour nga génne ko muy xale muy mag muy góor muy jigéen muy jaam muy ki nga xam ne moom mooy euh, ngor moo tax yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom ñuy wax na ne ki nga xam ne ne dafa yor euh, maanaam euh, dafa am fétus bu nekk ci biiram fétus moom mooy benn bébé boo xam ne ne moo ngi nekk ci biiram muccagul muccagul kooku bu fekkee euh, fœtus boobu noonu am na quarante jours wala waa am na am na quatre mois bokk am na quatre mois parce que ci quatrième mois bi comme ni mu ñëwee ci xadis yonent bi alayhi salaatu salaam foofu la euh, ruux bi di duggee nit ki doog a nekk nit boo tollee ci quatre mois bu boobaa foo ñu génneel ko azaka muuru ko bu ñu koy génnee foo ñu génnee waaleel ko ko kon képp koo xam ne ne yaa ngi ci euh, ëttul lislaam yaa ngi nekk jullit azaka muurum koor farata la ci yow koo munti doon léegi nag am na leneen mooy nekk xale yi nekk ci kër gi ak yu ni mel wala soxna si nekk ci kër gi kan moo leen war a génneel azaka muurum koor bu fekkee amuñ ko ki leen koy génneel mooy ki nekk sous leur ñoom ci ku ñu nekk sous tutel tutelle cest seen kilifa ki leen di dundal kooku moo warloo moo ci kooku la war mu génneel leen en même temps azaka muurum muurum koor gi kon loolu boo ko déggee mooy li nga xam ne moom mooy wane ne statut juridique bi nga xam ne ne asaka muuru koor moom la am moom mooy farata la te ci saa nañ ko war a génnee naka noonu tamit ci mboolem jullit yi la nekk farata kañ nañ ko war a génnee mooy balaa ñuy balaa nit ñi di julli euh, li nga xam ne moom mooy euh, julli korite moom nañ ko war a génne soit à partir de bu fekkee dañoo gis weer bi bu ñu gisee weer bi ba keroog ñuy war a julli foofu nga ko war a génne sinon boo ko génneewul foofu rek comme xadis Abdullah ibn Abbas lu mu wax rek moom mooy na sarax ngay am bu génnee foofu rek boobaa dootoo amati euh, azaka muuru ko waaye boobaa sarax rek nga ci nga ciy am kon xadis bi ñu wax léegi nii xadis la boo xam ne imam Bukhari ak imam Muslim solo nañ ko beneen mabaxas bi ñuy def euh, moom mooy gëstu bi ñuy def moom mooy ci lan nañuy génnewee azaka muurum koor ndax gis nañ sànq ne ci tam ci li nga xam ne moom mooy tàndarma ak li nga xam ne moom mooy orge yonent bi alayhi salaatu ñoom ci loolu nañ ko doon génnee léegi nag ndax ci tàndarma kese nañ ci nañ koy génnewee wala ci orge kese nañ koy génnewee loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi dañoo wax ne azaka muuru koor euh, dañ koy génnewee selon nit ñi euh, seen ñam yu yu ñuy gën a lekk ci seen biir dëkk cest à waa France li ñuy gën a consommer ci loolu nañ koy génnee waa Sénégal li ñuy consommer comme par exemple France euh, xaw ma euh, ceeb mi nga xam ne ne daanaka plat national la fii nii ci Sénégal mbayee ni xam nañ ci dara donc ci ceeb boobu fekkee ñun Sénégal ci ceeb boobu nañ ko war a nañ ko war a génnewee nest pa kon loolu nag ñan ñoo ci dëppoo boroom xam-xam yépp lu ci mel ni maalik yi naka noonu tamit ci maanaam ci benn mbooloo ci maliki yi dañoo dëppoo ci lool ak chafiin yi ak benn riwaaya boo xam ne jëlee nañ ko ci imaam ahmad ibnu xambal ak mazhab ñu bëri ci ay boroom xam-xam ñoom dañoo dëppoo ci ne kenn ku ci nekk dëkk bi nga ne ci lu ëpp lu ñuy dundee ci loolu ngay génnewee azaka murum koor kon bu fekkee fii Sénégal doo génnee azaka murum koor ci tàndarma doone noo damay roy yonent bi aleyhi wa salaam comme moom tàndarma déedéet wala orge bi laa koy génne déedéet solo sa dëkk li ëpp lu ñuy consommer ci loolu nga koy génnewee muy ceeb par exemple bu fekkee fii Sénégal ceeb ceeb ci ceeb nga koy génnewee lan mooy dalil lool lan mooy cest à la mooy preuve bi mooy riwaay bi nga xam ne ne euh, imaam yi da koo solo ne yonent euh, jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ naan génne azaka muurum koor ci bisub euh, bisub kii bi bisub fet bi ci cent mi ne taan dañ loo génnee cent c'est-à-dire dañ loo génnee cent expliqué naa ko sànq moom mooy quantité bi nga xam ne moom nañu war a génne waaye mi na min mit taa taam yi ci li nga xam ne moom mooy ñam waaye tamit euh, Abu Saïd moom dafa wax ne wa kaana taamuna shaira mu ne li nga xam ne moom mooy suñ li nga xam ne moo nekkoon suñuy suñuy ñam li ñu doon ñam moom li ñu doon lekk moo nekkoon sha'ir mooy orge lépp la fekk nag fii nii mu wax wa kaana taamuna li nekkoon nag suñuy ñam lu am solo la ci li nga xam ne mooy usul parce que fii bu fekkee dafa wax ne li nekkoon suñuy ñam c'est-à-dire ëpp lu ñu doon consommer jamono jooju orge la kon loolu lu ñuy lu ñuy signifier moom mooy kon nit ku nekk dëkk bu nekk ñoom lu ëpp lu ñuy consommer ci loolu la ñuy génnewee li nga xam ne moom mooy azaka sinon kon du sax du soxla muy préciser ne li ëpp ñun luñ doon lekk ci jamono jooju moom mooy ndàngam donc rien que précision boobu mu ciy joxe day tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim mën a tiiree ci loolu euh, ne kon mbir mi day aju ci nit ñi lan la ëpp lu ñuy lekk loolu moo tax nga ñu ñu lay wax fii nii ne bu fekkee Sénégal bu boobaa ci ceeb nañ koy génnewee parce que ci ceeb ñun mooy suñu mooy suñu ñam bi nga xam ne moom lañuy ëpp lu ñuy lu ñuy consommer fii quatrième mabas bi moom mooy ndax mën nañ génnee te masala bi masala bu am solo la ndax mën nañ génnee azaka muuru koor ci xaalis mos mën nañ ko xaymaa ci xaalis c'est-à-dire nga dem ci boutiquier bi nga laajte deux virgule cinq kilo ci ceeb ñaata lay jar mu wax la ko ba mu la ko waxee ba pare soit mu nekk mille deux cent nga calcule mu nekk mille deux cent wala mille cinq cent nga jël ko léegi kilo boobu noonu ma wala xaalis bi nga ne léegi au lieu may jël euh, xaalis bi wala au may joxe ceeb bi xaalis bi lay joxe parce que da ngay dégg ñu bëri di ko wax tamit ne comme nit ñi xaalis nañ soxla. kon ci xaalis nañ ko wër a nañ ko joxe directement xaalis te loolu après dinaa ci ñëw lan la ci boroom xam-xam yi wax rahmatullah boroom borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo dëppoo te ñu ci jiitu mooy maaliki yi te loolu eh, eh, ibnu abdul bar soloo na ko ci alkaafi fi fiq ahlil madina naka doon tam imaam ashafii ak imaam eh, imaam ahmed ibnu hanbal ngiiram dañoo dëppoo ñoom ñëpp ci ne kenn mënul xii xiyaa maam kenn mënul xiima cest à kenn mënul nattale li nga xam moom mooy zakatul fitre ak xaalis wala or wala li nga xam ne moom mooy billet yi rek ñu ñu xam xaalis yi ñu xam ni kenn mënu ci nattalee li nga xam ne moom mooy zakatul fitre cest à ceeb bi mënoo dem ne léegi comme ñii xaalis nañ gën a soxla bàyyi ma bañ a joxe ceeb bi joxe xaalis bi déedéet loolu mun a nekk te loolu jumhurul ulama loolu lañ wax mooy lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim loolu nañ loolu nañ saxal ndax lan ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni ñu ko waxee woon euh, ci xadiis abi saïd bi alxudri radiallahu taala anhu dafa wax ne nekkoon na jamono nekkoon nañ jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon génnee saa li nga xam ne moom mooy saa moom mooy azaka bi nu kii bi nu mu war a toll quantité bi lu mu war a toll mi taa mi taa min ci li nga xam ne mooy ñam kon ci ñam nañ ko doon génne te ñun suñu ñam dafa nekkoon li nga xam ne moom mooy tàndarma ak orge lu leer lan mooy dalil bi maay lan nañu fan la preuve bi nekkee ci loolu ne waruñ koo génne ne yonent bi alayhi salaatu salaam li mu faratal moom mooy sarax waaye dafa wax tamit ci lan nañ ko war ci lan nañ ko war a génnee mooy dañ ko war a génnee euh, systématiquement ci li nga xam ne moom mooy euh, ñam bi te jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn amul wute ne xaalis amoon na parce que da ngay gis ñoo xam dañ laa la noo jamono ji lu nit ñi gën a soxla mooy xaalis mais jamono boo mënti gis ci àdduna bu mu commencé ba léegi nii ba ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul vraiment benn benn benn jamono joo xam ne ne nit ñi soxlawuñu xaalis loolu amul am na ñoo xam ne ñoo jàpp ne jamono yonent bi sallallahu alayhi amul woon xaalis bien sûr que ne amoon na monnaie d'échange dinaar ak dirham nañ doon nañ doon weccante mooy argent frappé ak or frappé loolu moo nekkoon monnaie d'échange bi te yooyu sax moo gënoon pur fuuf ñun suñu monnaie d'échange parce que yooyu dañ ko doon frappé directement alors que ñun ay billets rek nañ yor di ko photocopier donc ñoom sax ñoo waroon gën a mën a maanaam seen xaalis moo gënoon force ñun suñu xaalis ndax diinaar rek diinaar boo ko doon calculer eh, lu bëri la lay jox fii nii boo ko xaymaa ak ñun suñu xaalis donc loolu pour wax lan ne jamono yonent bi xaalis amoon na kon xiyaas bi nit ñi di xiyaas ne dañoo war a mën nañ génnee li nga xam ne moom mooy xaalis bi parce que objectif bi moo am solo xiyaas boobu xiyaas bu yàqu la ndax nekkul bépp xiyaas bu nit xiyaas rek xiyaas bu baax la parce que li muy indi problème ci usul bi mooy est-ce que li nga xam ne moom mooy xaalis amoon na jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu vérifié ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam amoon na xaalis te pourtant génneew ko ci loolu te temps yooyu ñëpp xam nañ valeur u xaalis xam nañ ko kon loolu day wane ne nekkul ci loolu nañ ko war a génne am maa nag bu fekkoon dañoo vérifié xam na ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam c'est parce que amul woon xaalis te jamono jii am na xaalis bu boobaa xel la boobu cause boobu gars yi di wax day mën a peut-être mën a ne mais peut cause boobu day dàqu mënta ne la moo tax mënta ne parce que jamono yoonu saa sam amoon na xaalis te jamono yoonu saa comme amoon na xaalis te moom génneewu ko ci xaalis amul benn xadis boo xam ne wane na ne génnee nañ ko ci xaalis xii xiima nañ ko ci xaalis natale nañ ko ci xaalis génnee ko ci xaalis à chaque fois ci ñam rek lay nekk kon loolu liñ ciy déggee mooy ne azaka muurum koor mënuñ koo génnee ci xaalis ak soxla bi lu mu mun mënti doon mënuñ koo génnee ci xaalis ci ñam bi rek rek rek rek rek nañ ko mën a génnee ak wax bi lu muy rafet rafet rafet ak euh, philosophie bi lu muy rafet rafet rafet rafet dalil yi lii la wane léegi nag am na ñu naan noo boo leen joxee boo leen joxee li nga xam ne moom mooy xaalis boo leen joxee ceeb bi dañuy dem weccoo ko xaalis te loolu nga jox leen xaalis moo gën mais loolu suñu yoon nekku ci en fait la moo suñu yoon nekk ci moom mooy yow liñ la defloo munoo ne euh, kii duma ko sarax parce que day day naan sàngara wala kii duma ko sarax maam duma ko sarax ceeb parce que sinon su ma ko saraxee ceeb da koy dem euh, jaay ko après bu ko jaay dem def ci lu bon déedéet loolu yàlla tegu la ko lim la teg tegu mooy lim la sant def ko yow saa sam daf la wax ne la jox ko ci wàllum euh, li ngay di dunde kon dañ koy jox ci wàllum lu ñuy dundee moom nag lu mu ko def après moom la ci moom la concerne mais pas ñun amuñ droit di xuus ci xalaat yooyu lu ñu am droit moom mooy jëfe yoonu saa sam lu mu wax ku jël nag xaalis bi wala ku jël euh, li nga xam ne moom mooy ceeb bi dem wecceeku ko benn partie mu def ko xaalis benn partie mu def ko ceeb loolu moom la parce que ba nga ko ko joxee yow ci la sa responsabilité génn xaalis bi day yokk day wàññeeku loolu yëpp yàlla maam en fait loolu sa problème yow problème moom la moom mi ci boppam yow li la warloo ak moom mooy nga jox ko pour nga am asaka muuru koor li la warloo ak moom mooy nga jox ko sa ceeb après usage bu mu ciy def nag ba xam da koy weccoo comme moom am na sax possibilité weccoo alhamdulilah fi mu doon garaawee xëy na sax charia bu ko tere woon ñu ne waa problème am na mais charia moom tereewu ko yow yow la gën a concentré wu jël ko jox ko ko kon yow lii sa problème moom mooy nga jël ko ceeb bi jox ko ko génn ci moo tax. loolu lu jar a bàyyi xel la boroom xam-xam yépp maaliki yi chafin yi xanaabila yi euh, naka noonu tamit euh, mbooloo ci boroom xam-xam yi lii nañ yaxal donte am na beneen yeneen boroom xam-xam ñoo xam ne dañuy wax li nga xam ne moom mooy li ma njëkk ko wax moom mooy am na ñenn ñenn ñenn du bëriwul sax ñenn ñenn ñoo xam ne dañuy wax ne ne walla mën nañ génnee xiyaamee kii bi ci xaymaa kii bi ci xaalis mais loolu boo xoolee comme ren la bi ma leen expliqué da nga gis ne loolu mënta nekk parce que usul ci boppam da koy dàq parce que li nga xam ne moom mooy problème bi mooy jamono yéen ci saa amoon na xaalis te moom génnewu ko ci xaalis amul benn xaalis boo xam ne day wane ne génnee nañ ko ci xaalis yépp dañuy préciser ne ci ñam nañ koy génnee kon dalil yi dafa leer dalil yi dafa leer yàlla ñu yàlla may dégg ak topp léegi beneen bi ci des moom mooy ci lan nañ ko ci ñan nañ koy jox wala ñan nañuy jox azaka muru koor boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo dëppoo <coughs> ci ne ci ñaari wax moom dañoo wuute bokk ci ñaari wax ci ñan nañ war a jox azaka yi ñen ñi comme lu ci mel ne xanafiya euh, euh, yi ak tamit euh, shafii yi ak xanaabila yi ñoom dañoo gis ne zakatul fitre azaka muru koor ñuñ koy jox mooy ñu ñuy jox zakatul maal mooy ñi nga xam ne noonu jox azaka bu normal bi mooy azaka bi nga xam ne moom nañu moom nañ xam moom mooy bi siw bi ñu ñu koy jox même chose lañuy jox tamit zakatul fitre bi ndax lan ndax alquran li mu wax ne jëlal sarax yi te azaka muru ko wax nañu sarax la bokk na ci sarax yi mais nekkul sarax comme ñun luñ ko foog sarax bu farata la donc sarax bi farata la donc jëlal sarax bi ay azaka yi nga jox ko ñi nga xam ne moom mooy faqiir yi ak miskiin yi ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci li nga xam ne moom mooy Euh, moom ñooy ñooy ñooy azaka bi naka noonu tamit ñi nga xam dañoo war a nammee seen xol et cetera donc ñooñu noonu alquran di lim ne ñooñu def leen war a jox li nga xam ne moom mooy azaka borom xam yii nii xanafiya ma chafiya euh, yi ak xanaabila ñoom dañoo wax ne ne ñooñu lañ ko war jox ñi ñu war a jox azaka ñooñu lañ koy jox waaye beneen wax bi ñoom dañoo yaxal ne ñi ñu ko war a jox du ñooñu ñi ñu ko war a jox ñaar ñaar ñii kese la. mooy faqiir yi ak miskin yi parce que ñoom ñoo nekk ci soxla bu urgent wee noonu te loolu mooy mazhabu Malik ndax noonu tamit benn wax rek ci benn ci ci ci mazhabu euh, xanaabila yi kon incha allah li yaay xool li ci gën a sox ñi ci gën a soxla en tout cas moom mooy faqiir yi naka noonu tamit miskin yi ñi nga xam ne moom mooy ñi yalwaan ak ñi nga xam ne dañoo dañoo ñàkk ba mais am nañ kersa di dem di yelwaan mais ñu xamee ci ñu xamee leen ak ñàkk ñooñu mën nañ leen ko jox te dam tamit doo dem ba kiri koro pour joxe azaka muru koor sa koñ ngay commencé boo gisul koo ko jox nga jàll ci koñ bi ci toog ngay jàll ci koñ bi ci toog mais doo jël fii envoyé ko yemeen wala envoyé ko France wala envoyé ko feneen azaka muurum koor aussi nekkul pour tabax jàkk na leer asaka mburum koor nekkul pour tabax ay ay ay école nekkul pour tabax ay nangam na nekkul pour tabax ay nangam benn objectif ndax gis ngeen objectif bi benn objectif la am mooy ñi nga xam ne ne dañoo seen loxo jotul seen ginnaaw ñoom ñu mën a feetu comme ñeneen yi parce que du ñu mën a du ñu du ñu jéppi ñi nga xam ne dañoo dañoo waaye tam nit ñi duñu lekk bàyyi leen donc loolu moo tax objectif bi yenn saa sam faratal ko ci jullit yi xam ne au moins nit ñi bu ñuy feetu ñeneen ñi aussi nañ dinañ feetu donc objectif boobu bu leeree duñ ko jël nag di ko tabaxee ay jàkka wala di ko demee joxe ay association pour tabax ay tali wala pour yooyu déedéet donc loolu lu jar a bàyyi xel la ci objectif yi nga xam ne ne azaka loolu moo ko tax a jug kon incha allah lii nañuy bëggoon leeral ci li nga xam ne moom mooy azaka yi boo leen seetloo guddal nañ leeral nañ taxaw nañ lool ci parti bi nga xam ne moom mooy azaka bi kenn du ko génnee ci xaalis te gis ngeen borom dalil yi mooy preuve yi ci aju ak borom xam-xam yu yu dëppoo ci wax boobu kon yàlla ñu yàlla may dégg ak topp ñu leen jox dégg daje ci beneen yoon euh, am na podcast boo xam ne ñoo ngi koy waajal di ko tuddee ak diinu waasi ba incha allah euh, yàlla na suñu borom defal ñu tawfiq ak taysiir in uridu ila al islaaha ma stataat wa ma tawfiqi illa billah